amis internet de Pikine TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen dalal ci allo diaspora ma ci ànd ak euh, ki nga xamante ne moom moo di sama frère Ibou Ndiaye waaye tamit di ci ànd ak sama PDG euh, Youssou Seck Ibou maa ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay fay Aïcha. di mhm. nuyu comme ni ma ko waxee rek ñu nuyu ñu nekk ci diaspora bi ñëpp ak ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci biir réew mi tey ay doomu sénégalais ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. Euh, PDG ñu ngi lay nuyu. waaye di fay yéen euh, suma mbokk waa Pikine la. Mhm. waa jàmm ngeen euh, fanaane. Mhm. jàmm rek. mbaa yaa ngi si jàmm. waaw ñu ngi si jàmm ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi leen di ziar lu bëri bëri bëri waaw. delloo ziar bu baax ak baax fu mu teen ma ñu ngi ci douze heures quarante cinq ban waxtu la leen fekk foofu. Euh, actuellement ñu ngi ci sept heures quarante cinq. donc sept du matin quoi huit heures moins le quart kon dafa mel ni yéen ndékkeegoo leen de non ndékkeeguñ rek julli fajar donc di waajal loolu di waajal yooyu daal waaw waaw daal di ma bàyyi daal ki nga xamante ne moom moo di rek pour mu li nga allo ñu xam ni nga grand waaw sëñ ngi lay ñu ngi lay fay bu baax di la nuyu yow tamit. Euh, di di di wax rek suñu question bu njëkk mooy comme yéen ci diaspora bi ngeen nekk yàgg ngeen foofu ci diaspora bi naka ngeen gisee actuellement doomu sénégalais yi nga xam ne jaar nañ ci yoonu Nicaragua bi ñëw foofu noonu nga xamante ne moom mooy États-Unis seen nekkin foofu naka la deme États-Unis euh, boo ko seetloo aussi tam ci mbool mi ci àdduna bi yëpp aussi donc euh, muy euh, mbir moo xam ne dem na ba fu mu nekk ni ëpp na loxo mhm. américains yi te doy na waar mais rek ñoom toujours ñu ngi wut solution pour di jàppale ñi nga xam ne ñoo jaar ci yoon boobu soit muy espagnol yi soit muy africain yi soit muy naar yi mhm. donc xam nga américains ñoom dañoo yëwoon mhm. donc ñu am xol lañu donc vraiment ñu ngi def li ñu mën ak li ñu mënul pour jéem xool naka la ñu régler cette situation bi nga xam ne euh, ëpp na leen fu mu nekk nii Sénat bi ak congrès bi yëpp ñu ngi ciy waxtaan bu jot mais ba léegi mun ñu trouver une solution ensemble maanaam ñaari parti démocrate yi ak républicain yi donc comme euh, xam nga Amérique euh, élection yaa waaj tamit donc mm-hmm. ku nekk nga xëcc pour pour def ci loo mën mm-hmm. donc foofu daal lañ tol mais métti na méttiwaay boo xam ne foo ko nattu rek maanaam yëpp suñu mbokk sénégalais yi nag ay càmbaar lañu ñu ngi góorgóorlu ñu ngi ñafe boy yi ñëw nii vraiment ñu ngi ñafe donc ñëpp gars itam ñu ngi leen di jàppale bu baax a baax xam nga kër sëriñ si fi nekk église yeeg tout donc ñëpp daal ñu ngi ciy duwar seen loxo ak nit ñi jël seen biir kër yi donc c' est ça c' est ça loolu la quoi vraiment. waaw PDG. mu am solo loolu ñi nga xamante ne moom moo di ndaw ñeek exode gu métti gi nga xamante ne rek ñu ngi koy def ci yoonu Nicaragua gi waaye nag ñu am benn question boo xamante ne bëggoon nañ koo laaj ndax nag ku ne xam na ni euh, jamono ji bokkul ak jamono ji nga xamante ne euh, moom la nit ñi euh, gënoon a bëgg di dem ci ci ci réewum tubaab yi comme niñ koy waxee ndax situation bu nga xamante ne bu njëkk ba moom lañ fa daan fekk ndax ba tey moom moo fa nekk ndax xam nañ ne ak crise économique gi dafa dafa dafa mondial ndax foofu mi ngi ñoŋ ba tey wala waaw bon donc loolu tamit euh, li nga laajte ni soxna Aïcha dafa am. de mhm. ba nekk nii parce que adduna bi dafa changé nii. Mhm. donc ak crise mondiale bi nga tudd noonu. Mhm. ni mu meloon Amérique ni mu meloon démb ak tey dafa Euh, dafa changé changement bu mag a boo xam ne ci ñëpp la feeñ. Mm-hmm. muy que si tubaab yi si ñu yow yi si ñu immigré yi ñoom donc surtout ñun immigré yi nga xam ne ñoo fi nekk donc euh, di vivre en famille. Mm-hmm. donc euh, métti na tamit métti na changement yi vraiment ñu ngi koy adapté mais pour xale yi ñëw nii man su ma sañoon actuellement. Mm-hmm. gars yi fu mu nekk ni ñu ngi serrer les ceintures. pour bloquer leen parce que actuellement ni la comme ni mu daan doublé. duggee tuñ ko léegi gars yi wàññeeku na bu baax a baax parce que fu mu nekk ni ñu ngi jëm pour barrer les frontières. parce que ñu gars yi lañ ciy dugal fu mu nekk nii donc man li may wax rek mooy xale yi bëgg a ñëw nañu patienter pour le moment parce que bañ a yàq seen xaalis bañ ñu ñëw tamit ci naka si du noonu rek ñëw sonn parce que dëkk bi métti na nit ñi ah vraiment li ñu mën a mënatuñ ko. Amerika saja, na e liga liggéey Jom donc ñu di di jël nii par benn benn ñaar ñaar yooyu léegi très rare nga koy gis wala boo ko ko boo koy def yow seen mbokk rek nga jël donc muy muy loo xam ne lu jar a bàyyi xel la et tamit ci xale yi di analyser waxtaan ak seen tenter la chance ci rek Mm-hmm. te doo xam kenn ah, amoo fi mbokk amoo fi parce que métti na ah. métti mm-hmm. na fu mu nekk yi maanaam hôtel yi nga ne ah, ah, état bi mi ngi leen ko doon jox yi wàññi nañ ko léegi ba trente jours wala deux semaines. Mm-hmm. donc léegi vraiment muy loo xam ne daal lu jar a saytuwaat la quoi lu jar a saytuwaat la te te ñun Sénégal. vraiment te xam naa ni yenn somme accompagner au Sénégal. ba nit ñi mën a mën a def dara quoi commencé au moins ba ba ñëw légalement moo gën quoi di ñëw nii aveuglement surtout aux États-Unis actuellement c' est très très très très difficile. waaw mais PDG. waaw léegi léegi lan jafe-jafe bi nga xamante ne ndaw ñi ñu ngi koy jànkonteel ba mu jaral leen ñuy fay 6 millions ñii di fay 4 millions pour génn jaar ci yoon bu difficile bi nga yow lan nga gis ne moom moo indi yëpp. li ko indi toujours di ñuy di si wax li ko indi bon ñun suñu pays pays sous-développé yi bu gisee ñuy doxalee xam nga corruption ba fa nekk ak li nga xam ne ñi nga xam ne ñoo leen waroon jàppale jàppale wu leen mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñoo leen waroon taxaw taxaw ñu leen loolu loolu moo ko indi parce que bon bu fekkee dañu am ay euh, ñoo xam ne ay nit yoo xam ne vraiment amuñu vision amuñu politique euh, boo xam ne la politique de mm-hmm. jeunesse de la jeunesse boo xam ne taxaw na parce que nii xale yu bi du xale yu jugóor rek ah. Sénégal fu mu toll tey ak Sénégal li ñu wax ni am na ko bu mhm. gaa yi defe naa ni njiit yi bu ñu góorgóorlu woon tuuti rek ah bu ñu góorgóorlu woon tuuti jàppale jàppale xale yi xam ne yëpp ah, dina ñàkk quoi defe naa daal côté bi foofu la quoi ñi nga xam ne ñoo suñu affaire mhm. parce que volontaire volontaire taxawul leen à cent volonté politique bi dafa mel ni moom est-ce que foofu noonu ci États-Unis dinañ jéggi saa rek tëj benn entreprise boo xamante ne lu milliers de personnes dañ fa nekkoon di est-ce que foofu dinañ jéggi saa rek entreprise comme ça pour des raisons politiques. non non non non non entreprise euh, pour des raisons politiques non non non non non non non non non non non non non gis non non non non non non ba non non non non tamit non non non non comme non Aïcha non seen yëpp dañ koy calculer mm-hmm. donc euh, bu leen jaralee ñu wàññi moitié entreprise bi loolu dañ koy def parce que yooyu yëpp ay analyse la ak évaluation dëkk bi Amérique fii ci évaluation la ñuy doxee mooy maanaam li ñuy wax toujours nit ki war na évaluer boppam mm-hmm. every six mois every trois mois chaque trois mois mm-hmm. chaque six mois ñu évaluer sa bopp nga xool yow fi nga toll woon six mois yi passé ak fi nga toll waat six mois yi ndax am na des changements ci comme noonu ñoom la ñuy dundee la ñuy xoolee seen bopp ndax ñu ngi yokk wala yokkutewul mm-hmm. mais malheureusement ñun suñu pays yi loolu amu fa suñu pays ñoom dañuy évaluer ay ay ñoom seen bopp ñooy évaluer seen bopp mm-hmm. nga xam ne lépp ci ñoom la mais boo yoree une entreprise da ngay toog benn moment nga saytu laaj ne man mii li ma meloon démb ak tey lan mooy différence bi nga jéem a xool. Mhm. jéem a xool les négatifs les positifs yi nga yokk leen négatifs yi nga bàyyi leen donc loolu tant que ñun africain yi doxewul. nii mhm. rek lañ ñaata ñaax rek. ak ñi am ay jiit yoo xam ne dañuy toog. Mhm. daal ne dañuy toog euh, euh, forever jeex na mm-hmm. donc euh, euh, duñu sóoraale askan bi quoi te askan bi moom mooy tax euh, ab réew développé vraiment mais loolu Ibou loolu loolu moom jafe-jafe gis te affaire politique yooyu moom loolu moo amu fi quoi moom da ngay joxe sa programme programme bu leer nañ mm-hmm. nit ñi ñëw ànd ci boobaa da ngay exécuter aussi tamit boo donc c'est ça qui compte mm-hmm. benn pouvoir bi ma ne en tant que ay sénégalais yoo xamante ne da ngeen di dund à l'extérieur nekkoo leen fii ci réew mi boo leen xëyee euh, ndax xam nañ ne yéen moom yéen a ñuy gën di topp li nga xamante ne moom moo di actualité yi nga ne moom mooy am ci réew mi euh, ngeen yeewu di gis euh, ay yenn xibaar yoo xamante ne ay nit yoo xamante ne dañ leen di faat ci ay anam yu jéggi dayoo ana yenn sentiment ngeen di ressentir en tant que sénégalais yoo xamante ne dunduñu fii ci réew mi waaw vraiment loolu loolu daf metti loolu daf ñuy métti bi ñuy gis yooyu wala di déglu euh, revue yi ci déglu rent bi am Sénégal actuellement loo xam ne mosu fa mhm. loo xam ne jéggi loo xam ne jaaxal na ñëpp jaaxal na ñëpp mhm. Mhm. waaw waaw waaw maa nii maa ngi nii maa ngi ci biir. Euh, comme comme yéen aussi da ngeen nekk ci période électorale comme fii Sénégal ñu nekkee ci ay période élection waaw waaw waaw yéen a ngi suivre actualité bi tamit bu baax a baax yéen a ngi gis tamit euh, li jëm ci wàllum report élection yi nga xamante ne ñu bëri ñu ngi koy euh, bëgg di sàkku euh, naam sax ñu bëri si nit yi d'accord ñu ci li nga xamante ne moom moo di dàq élection yi ana rek lan nga ñu mun a wax ci wàllum élection yi. waaw waaw mais élection yi vraiment euh, li ci ni ci ni ñuy sonne ñëpp ak ñi xam ne ñoo war a dem candidat candidat yi di ñu sonne yàq mhm. seen xaalis yooyu bu ñu ko fii nga xam ne ñaari semaine ci des ñuy wax ay waxu renvoyé yooyu loolu mënul nekk nañu bàyyi gars yi dem élection quoi mhm. et puis changement dafa war a am Sénégal le Sénégal a besoin de changement donc Sénégal mënul changement mënul fa ñàkk Sénégal il faut ñu def ñu indi leneen lu bees daal di mën a taxaw la pour pour liggéey Sénégal quoi donc euh, euh, pour renvoyer les élections loolu moom yàq yaakaaruma ni dina am ah man de kii xam naa ni ñuy wax nii rek ay polémique la mais Macky Sall ci boppam. vraiment moom comme tàggatoo na ba pare te Macky vraiment dafa il tient à ses à donc moom yaakaaruma ni dina dem ba ci biir mu désister quoi te est ce que ngorom dina ko may aussi tamit ak déclaration bi mu def ak euh, ni gars yi préparé nii ah di ba léegi ñoom ngi ci ñu ngi ci élection yi donc nañu bàyyi Sénégal fu mu nekk nii. Mhm. na nit ñi nekk benn. Mhm. te xam ni àdduna. Euh, Euh, adduna vraiment am na ci yoo xam ne jaru ko. Mhm. réew mi ñoo ko moom réew mi du wala benn kii donc mhm. réew mi appartient ak ak tous les sénégalais. Mhm. donc sénégalais bu nekk rek war na gis boppam ci réew mi actuellement quoi vraiment foofu lañ toll nañu am yërmande tuuti ñoom politiciens yi te xam ne vraiment bu mu fi indi dara bu mu fi indi dara di bokk jom rek moo wax naan jàmm gën troisième mandat tey ñu naan jàmm gën élection <laughs> loolu loolu loolu vraiment nañ bàyyi nit ñi dem voté ak leen neex quoi et puis on avance ah. ñëpp ñu àndaat nekk benn. parce que solution mun naa am donc li gars yi di craindre wala li ñuy wax naan bu ñu ñuy gagné dañuy jàpp ñii dañuy yëpp mun na bañ a am quoi parce que lépp ay waxtaan la ndax ñu nu neen Sénégal la. ah noonu la waaw non reporté élection moom jàpp nañ ne fi mu toll nii tembe moom mënatul a am grand Youssou loolu moom senti nañ ko ana ban sentiment nga am par rapport ak sénégalais yi nekk foofu noonu ñoom naka la ñuy dundee yi nga xamante ni nii dëgmal nañ ko tax yaa ngi sentir ci ñoom ne Sénégal jub nañ ay élection waaw waaw waaw waaw ñu ngi koy sentir fii bon comme bon bon ku nekk scolaire bi dem boote comme d'habitude ah comme d'habitude bon amul benn enjeu noonu mm-hmm. bon du comme nu kii mais euh, parce que nit ñi léegi dañu avancé ah ay affaire kii yeeg yooyu yoruñ ko dépassé nañ ko léegi nit ñi dañuy toog di ab seen ñaambur bu heure bi jotee ñu dem leen neex xam nga loolu la quoi amatul ay yenn kii yooyu bon fii moom vraiment ñu ngi koy dund bon ñu koy li mu pensé foofu ni mu kiiwee foofu noonu ah ba xam nga xaw jaxasoo tuuti ñuy wax di dugg ci yenn kii yoo xam ne vraiment. Mhm. Euh, loo xam ne mosul am Sénégal moo moo ko am nii bon la moo ko indi loolu nag après les élections war nañ seetlu lool euh, lan la. problème bi fan la jógee ak lu indi bi yëpp ak la moo tax aussi tamit parce que loolu il faut il faut Sénégal yi rek ko seen la moo tax parce que yu mel nii moo mën a yàq ab réew lu mel nii a tax ba kaw te mm-hmm. ci affaire la yoo xam ne yu ndaw ak ay bëgg-bëgg intérêt personnel mm-hmm. donc yooyu yooyu c'est à éviter quoi mm-hmm. vraiment mais Ibou ñu ngi koy dundee fii ah bon c'est pareil ah c'est pareil gars yi ñu ngi mu nekk mu ngi fii quoi mais bon comme ni mu ko cofoo Sénégal loolu melul fii quoi parce que nit ñi fii foog ñu koy liggéeyi. foofu dañoo organisé wu quoi doo doo mën a def euh, liggéey sa affaire. Mhm. ah daal di daal di ñëwaat donc temps bi quoi. Mhm. le temps. waaw ñu bàyyi ñu bàyyi la nga jàllale sa nga jàllale message bi nga bëgg a jàllale. waaw mais man euh, li may wax rek mooy euh, Sénégalais Euh, nañu am patience te xam ne àddina moom euh, xëw rek sotti. Mhm. xam nga ñu euh, gën a suulewu jàppoo nekk benn te te gis nga weer bi moom mooy weer bi nga xam ne moom mooy Black History Month maanaam histoire des hommes noirs mhm. actuellement mooy weer bi ñu dugg donc muy weer am solo ci nit ku mhm. xam nga ci nit histoire donc dañ koy wane fii aux États-Unis donc ñu ngi mën surtout Afrique noire yooyu la ñu war a mhm. di xool ñi nga xam ne valeur yi ñu am ñu leen di ñu leen di di valoriser. di leen wane di leen jàngal xale yi. am xam nga ni ñuy jugee nekk benn am am am xolu liggéey mënul liggéey ci loolu daal la ñu war a gën a encourager les populations. te ñu bàyyi naxante bi te di dëggu ak lu mu mënti demee la dëgg rey koo mënti donc euh, di leen euh, wax ni aussi tamit xale yi ñëw fii ci Nicaragua bi amuñu choix. amuñu amuñu choix métti donc il faut ñu génn ñëw. Mhm. donc euh, vraiment amuñu chance aussi tamit euh, euh, ñoom ñëpp ñu am ay këyit te ci yoon boobu la la ñuy parce que mu ñu dañuy wax rek naan dañuy delloo mais delloowuñ kenn mais ni ni képp ku fi ñëw jóge ci di ko na nga jub nekk ci li nga xam a moom la la yoon may. bu boo ko defee yàlla mën na la dimbali nga mën a am sa liggéey am sa papier dimbali say waajur comme ni ñu fi ah. donc mm-hmm. vraiment ñun enseignants yi ñu ngi def li ñu mën tamit quoi vraiment ñu ngi def li ñu mën mm-hmm. mais wëgi yaa yëpp critique la bon du ñëpp a yëpp quoi donc am na ñoo xam ne mën nañu am nañu mën nañoo xam ne mënuñu donc na ko gars yi jàppale noonu yow mm-hmm. si tamit ku ci mën a jàppale ñu nga jàppale ko te yàlla am ba daal di daal a avancer quoi donc loolu loolu bi képp ku mën a ñëw daal na nga ñëw mais aussi tamit boo ñëw na nga préparé bu baax. Mm-hmm. daal di xam euh, am am say matuwaay yu yu yu leer daal parce que ñëw ameewul noonu rek. Mm-hmm. mun nga découragé quoi. Mm-hmm. donc loolu nag si nit ñi bàyyi xel dañ koy préparé seen ñëw yi bu ñu ñëw nii rek di laaxatu rek daal di ñëw. Mm-hmm. loolu ngeen koy éviter. Mm-hmm. te danger da ngay waxtaan ak ñi ngay fekk nga wax ak ñoom. parce que ay moom lañu. nit ñi rek lañ moo wax. ñun ñëpp ñu jaar ci ci immigration donc xëy na nu mu demee nii moo tax immigration clandestine bi tax américain yi yóbbu seen i seen i frontière ñoom ñoo ko xam. peut être ils ont besoin de personnes daf leen soxla ay liggéeykat bu amee kër ñoom lay liggéey. donc euh, y a la chance ah y a la chance. yàlla et puis ñàkk pexe pexe la mais nga jaarale ko ci yoon quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. donc c'est ça. muy ay messages la gars di waa Pikine. loolu wax ni Pikine dafa war a décoller. Pikine il est temps mu décoller. Pikine il est mm-hmm. exact. ànd mag ak mag daal di liggéey te bàyyi euh, yi ñuy def noonu di di promouvoir ay euh, personnes yooyu dafa xew yi léegi ay man kii mooy sama leader yooyu nit ki yow da nga war a sa leader bopp a mm-hmm. ki da nga am loo war a gëm bala ngaa am loo gëm xam yow fi nga bokk fi nga jógee pare mais mm-hmm. topp ci ay gannaaw yooyu dafa xew yi léegi mm-hmm. yooyu boo gisee tey Sénégal kaw bi ñu ci nii mu looloo si yóbbee tey loolu moo ñu ko yóbbee donc waa Pikine nag moom ñu lay jaajëfal bu baax a baax PDG ak ci leeral am solo yi nga xamante ne indi nga ko waaye tamit ci message am solo yi nga xamante ne jox nga ko ndaw ndax nag tukki baax na loolu waaye xam li ngay fekki tamit dafa nekk euh, loo xamante ne rek day daal di gën kon ma bàyyi la rek nga tàggatoo ak internet yi nga xamante ne euh, ñooñu doon seetaan waaye ñi nga xamante ne tamit ñun ñu doon teelu waa di leen nuyu di leen sant bu baax a waa Télé Pikine mhm. vraiment Pikine Télé Pikine moom dafa lépp donc yéen da ngeen war a bokk ci ñi yéenay doxal diggante bi ngeen war a teg mooy yéen da ngeen loxo bu baax a baax. vraiment yéen di nuyu team bi yëpp ah, ci kaw ba ci suuf la ah di naan lim juum mais il faut mu lim la ah. Mhm. di nuyu i jaam ma jaay Aïcha Lo ah, suma journaliste bi nga xam ne moom ah, moom foo war a émerger mhm. Aïcha a émerger ak nag yëpp di ko seetaan te yéen yéen yéen ay góoram yéen a ko war a jàppale ci loolu. parce que mu ngi def liggéey bu am solo macha allah Ibou Ndiaye xam nga di wax. Cheikh Moustapha dégg nga bii ak Lamine sëñ Fallou Seck. di diine ji imaam. Oustaz Wat donc bàyyiwuma kenn ak sama secrétaire bi Adja Fall. di ak Murid Lam Murid Lam ci bi ah. donc yëpp daal macha allah quoi. gaa yi di bàyyi xel bu baax a baax te seen émission bi bu ko bu leen ko sàgganee quoi jokkoo ak waa diaspora bu leen ko sàgganee ndax émission bu leen mën a yóbbu fu sori am solo te waxtaan bi am na solo. bu ah. boobaa man daa leen di laaj invité ngeen waxtaan ak ñoom. incha allah incha allah ci kàttanu yàlla. mais encouragé bi. waaw kay jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm Grand Youssou gis ngeen di leen leen indiloon ci jokkoo ak euh, diaspora di leen sant bu baax di leen gërëm yéen suñu mbokk internet Pikine TV mhm. di leen wax rek wooy leen di wooyal seen ay abonné sur notre chaîne YouTube Télé Pikine TV mhm. te wooyal seen i commentaire te euh, topp ñu lépp loo xamante ne ni xibaar la tukkee ci biir réew mi ak ci bitim réew mi dinañ leen koy indil bu neexee yàlla ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Ibou depuis les États-Unis mu nekkoon rek ab waxtaan gu am solo nga xamante ne rek ñu ko doon amal ak moom ci rek seen béykat euh, foofu ci bitim réew kon nag di dox dig daje prochainement euh, ci seen beneen numéro Allo Diaspora d'ici là portez-vous